في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون jàkka ji fii ci pikku penc yeeg ñaar yi la bokk mooy Ngaraaf man nag jàmbur laa ci Ndakaaru parce que Ndakaaru dafa am organisation boo xam ni mooy jàmbur mooy député lébu waaw penc mi nag mooy sunu penc mooy pencu ngaraaf si fukki pence ak ñaar la bokk jàkka ji 1914 la lañu toxu fii ñu euh, ñu def ko fi maam xaali Jibril Njaañ jiite ko kooku ñëpp xam nañ ko ci euh, réew mi nitu yàlla boo xam ne la nag ñaanoon na yàlla ba am ngërëmal am na ngërëmal waaw ñun nag moom lañ fi toogal ay së ñun ay sëtam lañu léegi nag ñu xool dem ñoom ñoo fi waccoon jàkka ji moom mi ngi génn àdduna 1940 sunu papa yi jaar nañ fi mais ñu dem nag ñun sët yi ñu dem ba nga xam ni nag léegi ñu ne nag ah ñoom liñ fi waccoon war nañ ko renouveler defaraat ko loolu moo andi projet bi ñu ànd cee nag sunuy mbokk yëpp ak waa Ngaraaf waa nag ñëpp jàpp nañ si parce que jàkka ji ñu bari xam nañ ko ci zawiya yi la bokk jàkka joo xam ni ñaan gu nangu ñu bari dinañ ko dinañ ñëw di fi ñëw di ñaan waaw ñu bari moo tax boo Ngaraaf rek fii ci Ndakaaru ñëpp xam nañ ko waaw projet bi nag. Eh, mi ngi nii yéen gis ngeen ko commencé nañu waaye nag boo nañ ci julliti ñëpp Sénégal yëpp ku ñëw mën cee jàpp te ku ci jàpp avancement rek nga ciy jële parce que liggéeyu yàlla la. waaw fi mu ne eh, ñi ngi ci fondation yi fondation bi génn na xam nga yaa ngi koy xool nii génn na léegi nag mais bëgg nañ daal du taxaw waaye nag. ñu ngi yaakaar daal ndimbalal yàlla rek waaw ak julli. maintenant à propos liggéey bi euh, fi ñu toll nii euh, defoon nañ euh, commencé woon nañ fondation yi commencé nañ fondation yi def fouilles yi ba pratiquement mën naa ne lépp loo xamante ne daal war na ci fondation terminé nañ ko waaye li ci des mën naa ne c'est terminé à quatre-vingt-quinze pour cent li des c'est juste benn dallage boo xamante ne moom moo war a des pour ñu boucler fondation yi à cent pour cent quoi loolu daal moo des pour liggéeyu fondation bi. ndax loolu dafay jël temps. baa loolu du jël temps lool pratiquement du jël temps parce que loolu yëpp daf bokk ci processus construction bi parce que aussi lu nekk dafa am temps boo xamante ne moom la laaj pour ñu def ko comme def nañ ba toll fii nga xamante ne moom mooy remblai contre fondation bi ak remblai sous dallage bi donc après ci la ñuy jublu pour def euh, li ñuy wax dallage bi quoi. waaw di leen woo rek ñu ñëw jàpp si parce que comme on dit xel du doy xam-xam aussi du doy te lu benn mën ñaar ko dàq ñett a ko dàq juróom a ko dàq donc comme liggéey bi des na te fi ñu tàmbalee ni defaguñ dara mën naa ne defaguñ dara le plus gros du boulot des na donc fépp fu technicien nekk ak koo xamante ne jàpp na ne moom xam-xamam mën na ko andi ci liggéeyu jumaa ji ñu ngi koy woo mu ñëw parce que liggéeyal jumaa moom daanaka defaloo ko kenn ah, sa bopp nga ko defal te lépp loo liggéey lu baax moom yow yaay fayeeku donc kenn du fayeeku donc amul pertement quoi képp ku ci am temps na ñëw def si après waaw ñu terminer ko daal une bonne fois bi dafa am ay section nag parce que fii lu ñu dogal rek chef de penc bi El Hadj Samsi Ejine Diagne moo koy dirigé moom su paree da jox ay ñaamburam ñoom Bouchra Diagne ñoom Daouda Diagne ak ñoom Abdoulaye Youssou Diagne ñun nag ñooy frais boo xoolee ñooy assemblée bi mais instant bi liggéey bi comme je ne pas trop technique. mais man commission info laa gën a nekk mais on a vu que ni gas nañu fondement un mètre cinquante bi ñu gasee on a été trop surpris parce que dañ fi comme géej ndox mi dafa bëri woon on a pris temps rembalé waat ko defaat ci béton defaat ci suuf defaat ciment defaat bâche ci fii yëpp dañ ko bâche pour téye ndox mi donc mu nekk dépense yoo xam ne c'était pas prévu et ça a coûté des millions donc dafa gën a grever suñu budget mais instant bi yàlla suturaal nañu ak mbokku jullit yi ak doomu aadama yi ak nit ñu baax ñi nit ñaa ngi ciy jàpp nag bu baax ku nekk boo rombee di nga am loolu ku amul xaalis tamit boo rombee di nga jël peel ji jël jël buret puus indi def ko fi sabilillah donc tey dem bi tey yàlla def nañu matal ko parce que ingénieur bi daf ñu waxoon du liggéey ci nawet nañu fexe defar fondement bi balaa muy taw moo tax dès le début ñu dem fexe ñefe ko ba fondement bi taxaw na yàlla dogal nañu tey lay pare te nawet gi xëy na tàmbaleegul comme il le faut donc li ingénieur bi bëggoon defal nañ ko yàlla jàppale nañu ci waaw pour le moment liggéey bi dafa amoon a ñaari groupe dafa am doomi yi ngaraaf ak ñi nekk à l'extérieur ñoo ñu woowee ngaraaf diaspora ak ñi nekk fii au Sénégal ñoo doon jàppale ci i fonds bopp seen i 1000 francs seen i téeméer la ñu dajale ba ñu benn montant presque dans les environs de 20 millions bon ñu ne comme yor nañ lii a démarrer ay travaux te jàkk ji ñaari partie la fa am bâtiment am bâtiment am salle de prière ñu ne nañ démarrer ci bâtiment bi li ñu yoroon nga xam nañ ni matul sax fondement donc boo ci ragalee rek moo yow wóolu wóolu woo yàlla donc on a démarré avec le peu qu'il y a jullit dinañ ñëw nit ñi dinañ ñëw te it liggéey bi dana àgg incha allah ñu ngi ci information yi nag nekk ni seeti jeeguñu benn partenaire financier bu am doole parce que bind nañ leen ay lettres def nañ ay courrier mais nag ça a pris du temps war na mat un an deux ans donc une aussi dafaat ay courrier rappel informé wax leen que ñu travaux yi commencé na ñooñu mais dinañ ñëw jàpp ci liggéey bi am nañ ci yaakaar bu baax a baax. pour concernant le maire surtout mooy Cheikh Amadou Bamba Fall. mais liggéey bi avant ñu muy commencé damay rappelé wu ñaari date bi ndijaayam génnee àdduna ñu koy saraxal Santhiaba premier ministre dafa yónnee délégation presque cinq ministres bi ñëwee waxtaan ak moom ñu ne leen boo leen demee ngeen ne président ngeen ne premier ministre parmi mes priorités phares li gën nekk sama xol ci Médina bi jàkkee Ngaraaf ci la bokk. bi ñu demee aussi stade Macky Sall ñëw fa ci temps affaire quinzaine de la femme bi. bi mu jëlee parole tamit ne na ay priorité am stade Iba Mar ci la bokk ak jàkkee Ngaraaf donc mi ngi ci programme am mi ngi ci liggéeyam mi ngi ciy xalaat bi liggéey bi commencé envoyé naa ko photo yi WhatsApp mi ne a ah quelle surprise félicitations maa ngi ñëw rapidement kon pour ñun mi ngi ñëw. a man Ngaraaf laa juddoo Ngaraaf laa màggee lépp sama lépp Ngaraaf la kon jàkka ji dama cee bokk te ci li nga xam ne mooy liggéeyu jàkka ji maa ngi ci pôle communication bi si laa bokk. mu nekk nag liggéey bu noble ni ko Daouda Diagne waxee sunu ay mag Pape mbay toog nekk un grand banquier un ancien directeur de banque ñëw yi di ñu dooleel kon lii liggéeyu Médina la fierté jaspora bi la liggéey bii daal ñun dañ ci woo képp koo xam ne sénégalais nga wante képp koo xam ne doomu Médina nga képp koo xam ne doomu réew mi nga foo mën a nekk nga xam ne jàkka Ngaraaf gii ku ci def sa contribution sa bopp nga ko defal ndax Médina dafa nekk loo xam ne quartier boo xam ne la dañ koy ndamoo lu ñuy ndamoo nag dañ ko war a dëggal ñu ngi ci woo képp koo xam ne kilifa diini nga képp koo xam ne kilifa aada nga ñu ngi la ci woo képp koo xam ne daal yaa ngi nooyoo di wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna mada rasulullah ñu ngi lay woo ci liggéeyu néegu yàlla bi bu dee ciment la bu dee fer la bu dee suuf la boo ko indee ci jàkka ji jox ko Daouda Diagne wala chef de quartier Abdoulaye Diagne koo ko mën a jox dañ koy def ci biir néegu yàlla bi ni la ko Daouda Diagne waxee rek ay doomi ngaraaf ñoo jël seen ñaar dërëm ak seen fukki dërëm ndimbal na ca fekk loxol borom tàmbali liggéey bu rëy bi ki ay millions yi millions des centaines de million moo koy def kon yombul kon ñu ngi ciy woo kilifa yi nga xam ne kilifa politique lañu dëkkoon nga Medina ba dëkkatoo fi sax dëkkoon nga Ngaraaf sa liggéey la ndax liggéey bu noble la moo tax ñun ñu dagg suñu lépp di ci jiyaat ndax lii daaw da wax yéen ñi fi ñëw sax du ngeen ko rëccu ndax liggéey bu noble la jàkka ji jàkk xaari Jibril Diagne ñooñu la Sénégal la Medina la. suñuy repère fii la doomu Ngaraaf fu mu mënti nekk bu ñëwul fii rek day mel ni il est complètement déboussolé fii mooy sunu patrimoine moo tax moom ne la dañuy dem ba jeex rek lépp luñ ci mën a kii moom euh, avancé rek waaw. xam nga ñun dañoo dëkk ci koñ bi daanaka am suñuy métier kon donc buñ demee ba war a defar këru yàlla bi dañu xaar ñuy jëli ay doomu jàmbur donc fii lañ dëkk war nañ mën a ñëw jàpp ci liggéey bi. ñun loolu rek lañ war a mën a def ah, jàpp ci liggéey bi parce que ñu ñoo fi nekk ñoo ko war a jàpp. fi lañ dëkk bu jeunes yi génnul jàpp si dañuy dem jëli ñeneen di leen fay te loolu war na mën a xaj ci jeune quartier bi daal. waaw jeunes yooyu li ma leen di wax rek mooy li ñu war a def mooy ñu ñëw jàpp ci liggéey bi waaw parce que liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw man du ma ne ngaraaf rek la dëkk man maa ngi ni kusum laa dëkk mais sama lépp ngaraaf la kon donc gars yi war nañ mën a ñëw jàpp ci job oui ñu may doole parce que loolu mooy puissance ndax bu ëllëgee bu ne ana ñu ko liggéey ñu ne waaye suñuy sët yi fi dëkkoon la waaw loolu rek neex na. waaw liggéey bi moom mu ngi nii rek comme ni ngeen ko gisee voilà institut islamique la yaa ngi koy gis nii ah ak mosquée bi waaw nu nañu travaux yi mais difficilement mais quand yàlla baax na ko ñu ngi sant yàlla bu baax. الترافع في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام